bi da ministère bu am solo ministère bi nag 2012 ba léegi du ma nekk di wax chiffres yi ndax day gudd waaye li nga xamante ni moom lañ leen jox muy ministère bi 4000 milliards la 4107 milliards 637 millions 581 mille 813 francs CFA mooy li ñu jox ministère éducation nationale mais boo jëlee li nga xamante ni tey mooy dépense bi li jox tey enseignants yi muy dépense personnelle il y a 2077 milliards 989 917 400 720 kon jàpp naa ni ministère bi daanaka boo jëlee 50 pour cent yëpp a 60 jëm na ci tey enseignants yi ak li nga xam ne mooy départ personnel li nga xamante nii moom laa lay mooy kon ministère bi waruñu ko laaj investissement bu bari ndax mënu ko 2021 bii ñuy wote tey jii rek bis bi mi ngi nekk 500 milliards 541 milliards 211 milliards 701 304 francs CFA mais 458 milliards francs fa moo la jëm ci enseignants yi mais loolu jàpp naa ni ci bis 500 milliards 458 milliards jëm ci enseignants yi yaakaar naa ne loolu ku ne yéen ñi fi nekk ministre mën na ko def waxul lu am mënu ko il faut que ñu waxante dëgg ah. dépassement li nga xam mooy dépense investie par l'État ren si biir cent milliards bi 22 milliards 303 631 606 francs mooy li nga xam ne mooy investissement programme tout tout le programme mais kooku lan la man ci biir 500 milliards. mais il faut ministre ministre des finances ngeen génne 100 milliards francs CFA def ko programme pour que ñu mën a seet fa bëgg-bëgg yi mais loolu mooy ne jaaru mais lii mënu ko aussi ndax bëgg a recevoir table banc yëpp Sénégal. def ka salle classe yi def ay lycée def ay loolu munta am il faut ngeen wax loolu ministre des finances ak président de la République pour que ñu jàppale ko pour que bu ñu bëggee ay résultats yu baax ci école bi. monsieur le ministre ku ne xam na ni programme bu am solo mooy lu jëm ci daare moderne la 64 daare moderne pare na mais 32 mooy privé 32 mooy public Mbàkke am na si 4 4 yi fu mu nekk mooy benn bi mi ngi nekk maanaam Yaañka benn bi mi ngi nekk maanaam fi ñuy wax euh, euh, Madina Touré. beneen bi mi ngi nekk maa commune Mbacké benn mi ngi nekk Darou Tansir mais monsieur le ministre daara moderne yooyu dañ ko war a ubbi avant avant fête décembre mais bari na loo xam ne dafa manqué la te àggagul kon bëgg naa aussi tamit ñu jàppale leen pour que ñu mën a àggale ndax avant programme bi jeex la 31 décembre pour ñu amaat beneen pour que daara moderne yëpp mën a pare rawat na fi nga xamante nag mooy Koungheul ak Kaffrine foofu moom daanaka daanaka daara moderne yi dañ koy doog ko tàmbali rek te gisuñu sax ñi nga xamante ni ñoo nekk li nga xam mooy entrepreneur yi monsieur le ministre li nga xamante ni mooy éducation bu Mbàkke ku ne xam na ni soxla ay lycée mais jii élèves yi jóge Touba yëpp di jàng bu dee cent quatre-vingt pour cent yëpp Touba la ñuy jóge dañuy dugg si ay oto mais amuñu ko amuñu paas man mii di wax ak yow maa fayaloon deux mois parallèle fii pour que ñu a dem jàngi mais nit ñëpp def a def ay appel ay ay ak ay sel mais nit ñëpp def noonu pour jàppale état bi loolu mooy li nga xamante mooy li ëpp solo li nga xamante ne laa teg mooy 2 milliards 5 yi nga xam joxoon mu jëm ci affaire maanaam masque yi mais pourquoi éducation mun ñu ko si jox pour que ñu mën ko jox élèves yi comme que nee na masque yi mi ngi fi te soxla nañu ko na dañ gis benn table classe benn benn table banc boo xam ne ñetti élèves ñoo fi toog masque yu doyul amuloo xaalis boobu noonu masque yaa ngi fi xaalis baa ngi fi na ko débloqué jox ko ministère éducation nationale je vous remercie jërëjëf